ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu tey nag ñu ngi fii ci école 16 ci entraînement école de lutte Balla Gaye ñu ngi taxaw ak Lamine le grand coach moom mooy coach Balla Gaye moom mooy coach école de lutte Balla Gaye coach ñu ngi lay ziar. waa maa ngi leen di fay di nuyu monde entier di nuyu rawatina géej géejawaay gi ngeen fekk ak école 16 bi. tey dafa mel ni bàyyi woo ko xale yi fekk na na nga sol sa blouson di cokk-cokki. waa man moom sport dama ko bëgg wax dëgg yàlla man li ñuy def laay def chaque jour ma leen ko man su may daw damay takk dàll yi ni ñoom. ñu àndandoo di liggéey ñu damay takk daal yi ñu àndandoo di liggéey quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. mu mel ne bàyyeegoo ko xale no non bàyyeegu man xale laa ba léegi man du ma mag yenn mag yi amaguma 40 ans kay war naa mën di def tax soo deful cent pour cent nga def 80 50 pour cent sax wala 60. 60 ëpp na de. non du mën naa ko. mu ngi fi ba léegi waaw mu ngi fi ba léegi physique baa ngi fi ba léegi. <laughs> voilà ñu gis euh, Balla Gaye euh, ñëwaat ci fi nga xamante ne bii mooy école bi mooy école 16 fi nga xamante ne bii bi muy fayeeku ay 80 000 ay 40 000 ay 60 000. fii la njëkk a takkee ngemb doon entraîné ni ko olof Ndiaye di waxee boo dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu siwaat fa nga jóge woon retouru Balla Gaye ci école bi retouru Balla Gaye ci écrit bi naka ngeen ko dundee. waaw ginnaaw waaw di waxaat rek tamit naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin comme te yàlla defaat na si xelam ba mu xam ne lépp fii la woon ba dopp xam ne lépp fii la woon ba mu ñëwaat ñun loolu di sant yàlla rek la ñuy def te xam ne tey jii fii lu mu am rek fii moo ko may lu mu am ak sunu borom fii moo ko may ndax fii la jàngee bëre fii la doonee roi des arènes fii la doonee lépp gaa nag mosu koo bàyyi ndax mu ngi daan am ay combat di fi ñëw mais comme nim mu fiy ñëwee nii chaque jour chaque jour xëy na xelam ñëwaat na mu del xamaan ne làmb da cee bokk làmb dañ koo bëgg te il fallait tamit mu ñëw def la mu daan def mu koy may ndam te incha allahu rabbi nii mu ko jàppoo suko ko wul fan sam yëpp ak képp ku bëgg Balla Gaye de di ko bëggee de di nga kontaanaat incha allah. mu mel ni dafa mu dafa jël dafa jël engagement fi mu toll nii. waa jël engagement weesuwul yéen a ngi ko gis mu toog ma koy def loo muy def bàyyil muy bàyyi di ko boole xale yi nag ndax tey ji mbër mu mag la su demee ba maîtriser li xale yi di def mu koy def rek nga war a xam ne mu ngi fa. te yéen yaakaar naa ne yéen a ngi seetaan gis li xale yi def mu ngi koy def. gis naa nga koy dërëj. waa non man fii aw may caaxaan man moom wax dëgg yàlla moo ma ëpp lépp moom ma ëpp succès moo ma ëpp xaalis moo ma ëpp lépp mais su ñëwee fii du ma nangu mu ëppale ma dara fii yaay seefam waaw li ma bëgg mu def ko moom lay def te wax dëgg yàlla déggal na ma ay waay lañ te xam ne man jàmm rek laa ko bëggal ak liggéey bu jaar yoon si lañ nekk moo tax il fallait da koy def ko insha allah mhm. ban état de forme lan la nga nga gis ci moom jamono bi non mu ngi mu ngi ci ndax boobu ba léegi wax dëgg yàlla mën nañu dafa am si lu mu jóge woon nekkoon ci ay fajo mais macha allah defe naa yaakaar naa ne demoon na fi voyage gis ngeen ko demoon na France pour faju ñëwaat te bi mu ñëwaatee ba léegi wax dëgg yàlla gisaguma benn épreuve physique boo xam ne ni maa ngi koy defloo di si sentir ni mu lii dafa am problème pour def ko wala dara li ma bëgg mu def ko yëpp mu ngi koy def. mi ngi koy liggéeyloo mi ngi koy mi ngi koy def à 100 pour cent. waaw mu ngi koy def à 100 pour cent. Mhm. mu dëgg ma ay combat yu doy waar. digganteem ak booy Niang digganteem ak Gris Bordeaux digganteem ak Eumeu Sène mais coow li bëri woon na Eumeu Sène eh, Boy Niang lay njëkk a bëreel Gris Bordeaux lay njëkk a bëreel lan moo waral ngeen njëkk jël Gris. non man combat Balla Gaye Gris moo ma wóor fi mu ne nii ndax moom laa dégg ñu régulariser ko CNG si combat boobu laa mën a wax ndax combat yooyu yëpp jàpp naan dañ ko signé nii nii nii nii rek mais wóorul. Hmm. wóoru ma quoi man. ah wóoru la yow en tant que coach. waaw li ma leer ba leer mooy combat bi mu wax ni moom laa am damay bëre Gris Bordeaux boobu la jàpp ne mooy kombaam te di ñaan sunu borom le sept la defe naa août suñ ci yeggee jàmm sunu borom defal ñu ndam. Mhm. le 7 août la. Mhm. mu mel ni tamit am na yeneen xale yu nekk ci écrit bi euh, fi mu toll nii am nañ combat mu mel ni école bi macha allah promoteur dañ leen a dañ leen dañ leen a dëgmal. waaw combat yi bari na ndax soo xoolee tey Youssou Ndour mu père Balla Gaye Ndour am na combat. Mhm. Fils de Balla am na combat. Lat Dior am na komba John John Kara am na combat ay Forza. combat yi bari fi daal di ñaan sunu borom def tawféex ak jàmm. may ñu si ndam quoi. loolu rek laay ñaan. mu mel ni euh, doon nañ gis la Gaye doon def ay prise yu doy waar ci combat am ak ki nga xamante ne bii mooy Ousmane Diop. wandeelu ba ñu ngi koy fàttaliku def naa yooyu ci yow la joge woon. waa tey jii su ma la waxee benn affaire tey Balla lii muy def. Hmm. su ko continuer rek day defaat lépp. est-ce que loolu mi ngi koy mën ba léegi. ma la wax dëgg la. Hmm. lépp dëgg la yéeg din dëgg la lépp dëgg la mais physique contact mu ak dara hmm. te kii mën naa ni doole chaque jour ma wax ko daa nekk ci yaxam su kontaagee physique lii ñu koy teg mu koy tegoo di bëre xale yi ndax Balla Gaye mën na bëre ba pare soxlaatul ay poids kii xamala la soxla di bëre ak ay mbërëntaan te tey jii mënoo yor ku mel ni Fils de Balla presque au minimum Fils de Balla am na 120 kilo Youssou Ndour am na benn 110 kilo am fi ñeneen ak ñeneen yeneen booy yoo xam ne ni ay caatu daaw da faal nga xam ay mbërëntaan lañ bëre boobu muy bëre moom rek da koy indiwaat mhm. mais est-ce bi am léegi du ko yàqal rapidité ba mu amoon bu njëkk non Balla ko nii yéen a ngi gis nii kii amul poids est-ce que bëgg moo Gris Bordeaux est-ce que du ma. non non Balla na. non ay 100 kilos rek laa bëgg mu bëre ko Gris Bordeaux suy bëre Gris 100 kilos rek doy na quoi. mu wàññi quoi. non non non déggoo la Balla matul dara fi ne Balla fi ne ay 115 kilos la yooyu rek. kii niñ Balla mu njëkk laa bëgg mu ñëwaat. Balla 2007 2008 2009 ba 2010 laa bëgg mu ñëwaat. Balla 2011 2012 2013 yooyu yëpp bëggatuma si dara. ah bon Balla 2007. Balla 2006 2007 2008 2009. 2010 yooyu la Balla boobu laa bëgg mu ñëwaat. te pare nga pour pour pour pour ànd ceeg moom. non bañ a pare ndax lépp loo gis daa am lu ko jar quoi ndax wax dëgg yàlla di au passage di nuyu kilifaam gi Aziz sunu grand nga xam ne moom wax dëgg yàlla wane na ne tey jii ñun ñuy delloo nañu cër gi ñu am ñun. muy woo nañu ñu toog waxtaanee lépp ñu delloowaat lépp si loxo mu yëkkati nag lu bari jox ma nag. Ah. lu bari la yëkkati jox ma ne ma nag mu ngi noon say loxo. soo pare sedd ma bokk. preuve laa bëgg. <laughs> Mhm. jaajëf coach ok donc ñu ngi lay jaajëfal ñoo far merci beaucoup